asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 daleen ak jàmm ci seen émission SOS santé bi ñu amaat mbégte di leen euh, dëttal ci la 97.5 te ñu am mbégte contenté di ci dalal ki nga xam ne moom mooy euh, madame Adama Mbaye yor lépp loo xam ne jëm na ci suivi ak évaluation ci programme bi xeex wàllub euh, PON fii ci ministère de la santé et de l'action sociale madame Mbaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di la jaa jëfal ci disponibilité bi ak wuy si gi nga xam ne wuy si nga ñu ko ci sunu émission SOS santé. man tam maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. di leen wax sama contentement ci ñëw ci seen émission. SOS mhm. santé. voilà jërëjëf gannaaw loolu madame Mbaye ñu euh, wax ni léegi yaa ngi liggéey ci kuréel bu ñu naan programme national de lutte contre le tabac euh, mën nga ñu mhm. xamal tuuti ci boobu lépp programme. waaw benn euh, bànqaas la bu ministère de la santé yore. bànqaas bi nag mi ngi bokk ci direction de la prévention maanaam lépp luy aar jàngoro ci askan wi ak di ko xeex euh, wante nag programme bi yàggul deux mille quinze lañ ko créé juillet deux mille quinze mais fekkoon na d'abord ministère ak sant ak direction bi nekkoon ci di ko xeex waaye nag bu mu ñëwee dañoo nekk sur le terrain am ay partenaires yu ñu accompagner mhm. yoo xam ne dañoo ànd ak ñun ñu ànd di xeex lépp luy poon cigarette ak i balaam ci biir askan wi mhm. dale ko ci xale yi ndaw yi ba ci mag yi góor ak jigéen mag ak ndaw mhm. ba ci fi nga xamante ni bii ay ay ay ay ay dëkkuwaay lañ wala euh, lieu public maanaam foo xam ni askan bi dañu fay dem di di def feet wala di lekk wala di naan yooyu yëpp wala ci baar yi ñu dugg fa won leen ni ah Sénégal kat am na loi bu bees loi 2014 14 boo xamante ni bii dafa jóg uniquement lekk rek xeex. cigarette pour xeex wàllu poon. Hmm. waaw poon cigarette ak ak lépp lu ànd ak moom ba ci chicha. Hmm. Euh, ñu gis ne euh, comme ni nga ko waxee sànq Sénégal am na ci atum 2014 ab euh, loi boo xam ne day tere wàllu pon waaye naam sax ne am na ay jéego yu bëri yoo xam ne am na ci ci boobaak léegi mais amoon na ay yéex-yéex yoo xam ne amoon na ci lu jëm ci décret d'application yeeg yooyu fan lañ ci tollu tey. ah décret d'application bi signé na ko. Mhm. le président de la République depuis 2016. Mhm. maanaam mën naa ni bi ñu loi bi amee at genn wàll. Mhm. lañu ñu am décret d'application bi et boobu ba tey décret boobu moo ñu mooy ànd ak ñun ñu jàpp ci ñun ak ak lépp luy police gendarmerie maanaam ñi nga xeex ñi nga xam ne dañuy jóg rek ngir réew mi am sécurité am jàmm ànd ak ñun ñuy def ay supervision maanaam di wàcc ci bar hôtel restaurant yi. Mhm. di leen wax ni kat ah loi bi kat dafay tere lu bari bay tere ngay tox ci kanam nit fépp fu nit di tase. loi bi dafay tere kenn ku fa nekk di tox te mhm. loolu day dem ba ci ñu lay teg ay daanuwaay mhm. daan yi nag mën naa nekk xaalis mën na nekk leneen ba tey itam bi décret bi génnee daf ñoo woon ni ah suñu xale yu ndaw yi kat suñu nga xam ni ñoom ñooy suñu suñu yaakaar ëllëg dañ leen a war a aar mhm. nuñ leen di aare mooy fépp bérébu jàngukaay wala bépp bérébu fajukaay digganteem ak fépp fu ñuy jaaye Mm-hmm. pot nag cigarette war naa toll ci ñaar téeméeri mètre. Mm-hmm. donc pour diir que loi bi tamit am na yeneen yu mu saytu bari na bari na ba ci commerce illicite maanaam cigarette si ñuy dugal ci réew mi te tefaruñ ko fi ba nga xamee ba ci tamit euh, loi bi mi ngi xeex tamit lépp loo xamante ni bii dafay dafay yàq. askan wi ba ci li ñuy defaree cigarette yi boo gisee ni paquet yu bees yi dañ ciy def ay photo pour wane kuy jëfandikoo poon ak cigarette fa ngay mujj te mu doon ci réalité. Mhm. waaw. voilà mais gis nañu tey que ni madame Mbaye en dépit de tout cela gis nañ ne ba tey euh, respect bi nga xam ne war na ci am des na ci euh, parce que da gis ba léegi ci lieu public yi maanaam su ma nee lieu publique tey fu mel ni par exemple arrêt bus ak yooyu da ngay gis ñu taxaw am ku taxaw di tox di sànni fumier yi ñeneen yi euh, mu mel ni ba tey askan wi des nañoo topp li nga xam ne moom mooy loi bi. waaw comme toute loi rek maanaam lépp loo xam ne ah, réew mi borom réew mi daf ko ki ñu jiite muy président de la république ak ñi nga xam ne askan wi la muy ministère de la santé loi yu bëri euh, maanaam nit ñi duñ ko jéem a topp waaye ñun nag lépp lu ñu man ñu ngi koy def te xëy na bu fekkoon ci arrêt boobu am na koo xamante ni bii xam na maanaam li nekk ci biir loi bi ak li muy tere dina mën a wax kooku kat ah loi bi dafay tere lii demal bul ñu ko bul ñu xër mhm. parce que ki nga xamante ni bii dañ koy xër maanaam la muy mën a jànkan tool jëme ko ci wérgu yaramam moo ëpp fuuf kiy tux ci wàllu boppam mhm. parce que euh, bopp euh, ay ay jàngat yu bari ak ay recherche wane na ni euh, li génne ci saxaar soosu toll na ci ñeenti junni ñeenti junni musiba ba balaa yoo xamante ni bi day génn ci as ci ci biir fumier bi muy toxicité di dugg ci sa biir ci biir dënnu ak bakkenu ki nga xamante ni ni dañ koy xër mhm. te loolu feebar yi muy indi bari na lool xamul num mu mhm. kenn xamul nu mu toll ba ci feebaru dënn yi feebaru cancer feebar goo xamante ni bii day indi maladie cardiovasculaire maanaam ci sa xol et eh, ak yu bëree baree bari mhm. Euh, dem dem nañ aussi ba gis ne tamit même ba ci programme de télé yeeg yooyu des fois nga gis ay série wala ay yeneen yoo xam ne day am nga gis ñu ñu ciy tox des fois yéen da ngeen di génn acteur société civile bi surtout dañ leen di gis ñu nekk au devant de la scène di wax ne di ko ñaawlu des fois ay plainte am ceeg yooyu mais gis nañu daal ba léegi fee yooyu dafay persister lan moo ci position ministère. ah position ministère mooy ren ñun dañuy ànd ak société parce que am na yoo xamante ni bii ci wàllu askan bi du wàllu ministère wàllu société civile la. Mhm. parce que ñun ministère bu ñu saytoo bi bëgg décret ah société civile da koy daal di porter ànd ak ñun. bu décret bi buñ ko bindee ñoom dañ koy ànd ak ñun tam ñu topp ko ba ci ba ci euh, secrétariat général du gouvernement bi li nga wax tam am na solo pour dire que société civile tel que LISTAB. Mhm. LISTAB dafay ànd ak ñun ba ci daaw porté nañ plainte. ñoo xamante ne bii ñu siiw lañ génne ay série yoo xamante ne bii benn lutteur bu siiw daf ci nekk di tox fii ak ñeneen ak ñeneen ñu topp leen ba dem ba jël avocat woo leen seen avocat toog ñu toog presque lu tax def ñu jugement parce que dañ ñoo wax woon ni dootuñu ko def mhm. te yaakaar naa ni boobu ba tey euh, at dem na gisaatuñ ko ci biir télé série yooyu ñu tegaat ko Mhm. te télé bi sax man naa ko citer mais aussi c'est pas nécessaire. Mhm. c'est pas nécessaire mais bien ab xam naa euh, anecdote bi nga joxe mais bien après loolu gisaat nañu am yeneen série yoo xam ne dang dang ko ciy gis. ah loolu de bu ñu bu amee xëy na daf ñu échappé mais mhm. série bu am bu génn. lissab day ànd ak ñun ñu xeex ko. parce que ñun ci biir comité lissab bi dañuy dem toujours ci seeni ñëw ci seeni activité dañuy ànd lëkkaloo parce que dañoo am benn comité national boo xamante ni bii Euh, ñëpp ci bokk ministère société civile association médecin yi sage-femme d'État pharmacien macha allah ku lim jum organisation yu bëree bëri yoo xamante ni bii ak tamit les organisations de femmes et de mm-hmm. jeunes. Mm-hmm. ñu ngi ci biir ñu ànd ñun ñëpp di xeex lépp lu jëm ci poon ak musibaam ak balaam. Mm-hmm. ak lu ñuy def ba askan wi bàyyi ko. rawatina suñu suñu ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo war a yore askan wi ëllëg. ñoom ñooy suñu kenn waay. Mhm. Euh, parce que tey euh, pour dire que industrie du tabac dafa am doole bu baax ba tax na tey ñoom dinañu dem peut-être infiltrer lu mel ni série yooyu wala yeneen yooyu nga xamante ne euh, par exemple dafa am benn incidence bu ñu am ci askan wi parce que ñëpp leen di xool ñëpp leen di suivre tey ji est-ce que nat ngeen paaru industrie du tabac peut-être ci genre comportement yooyu. Ah, loolu nag nattuñu ko parce xalaat. mën na nekk ñu nekk ci seen gannaaw mën na nekk tam industrie nekk ci seen gannaaw parce que yàlla daf leen a may doole. parce que mm. doole di ci ci wàllu wërsëg. wante nag du tax ñun tamit suñu doole bi ñu yàlla may ñuy xeex lépp lu jëm ci feebar ak lu aar askan wi yàlla tam may na ñu ci ba nga xamante ni bii ñun tam dañ leen di topp di leen topp pour que lépp loo xamante ni bii ñu ngi ci loo xam ni jaarul ci yoon ñu taxaw ci ba nga xamante ni bii dootul am. Mhm. gisatoo fi benn panneau publicitaire buy teg ay cheval mal góor góor gu yéeg ci fas yore doo di topp. Mhm. gisatoo fi xale yu jigéen yu rafet yi sol ay tenue yu rose di di publicité yooyu yëpp macha allah macha allah donc yooy yëpp programme tabax daf ko ànd ak askan wi ak société civile ñu koy xeex. Mhm. rawatina nag ci nga xamante ni bii bi ñëw na. mais nag toujours lépp du du du ma ni lépp tout rose parce loo loo liñ naan loo loo wóolu wóolu sab aat buy dem néegu góor di nga ko napp mm-hmm. ni ko ah defal nii defal nii kat bu ma gàcceel bu ma lii donc ñun tamit ñu ngi ci tànk yooyu te ñu ngi ñaan yàlla jàppale ñu ci ak askan wi yëpp ak suñu président de la république ak aussi suñu suñu ministre de la santé. Mm-hmm. parce que dara bañu ko ci macha allah. Mm-hmm. Mm. parce que tey li nga xam ne mooy wàllu pon bi am na benn euh, pastef ak benn dogg bu am solo boo xamante ne askan wi am nañ ko ci euh, mun naa ci citer par exemple parlementaires yi ak tamit surtout société civile ñu ci mel ni waa LISTAB nga xam ne ñoom kenn na seen xeex ci li nga xam ne moom mooy wàllu pon bi ñu def si liggéey bu am solo ba tey loi ak yëpp taxaw mais tey euh, par exemple li nga xam ne moom mooy surtout incidence euh, industrie du tabac parce que ñoom dañu nekk nit yoo xam ne comme ni nga ko waxee dañoo am doole tey mun nañu dem investir ci mel ni ci ay opito ak yeneen ak yeneen maa ngi gis sax communiqué bi nga xam ne génne ngeen ko ci euh, journée bi que ne dañuy sax infiltrer ci xeexum corona beeg yooyu di financer yu demee noonu tey ji est-ce que loolu tamit euh, yéen mun ngeen maanaam teg ay barrières ci côté boobu. oui loolu moom barrière mi ngi ci parce que tamit du ma mën a dem directement ci société ci kii industrie tabac te jàlluma ci parlementaire yi parce que li nga wax tamit am na solo parce que xel day fattu parlementaire yi bu demee ba am loi ma macha allah seen loxo mi ngi ci biir seen loxo ngi ci biir ba ci rapportrice su journée bi nga xamante ni bii ci la ñuy voté loi muy honorable député Mame Mbayam Dione ak staff bi yëpp bu ministère ak commission santé bu assemblée nationale donc ñu ñu ngi leen di gërëm jaajëfal leen pour dellu si nag ci li ngay wax ci industrie tabac ak financement Covid bi. Mhm. ñun ñu ngi koy xeex. yaakaaruma ni ah turu turu industrie tabac benn ñëwul ministère ci turam joxe fa ndimbal. kon dañuy làqatu yeneen tur. waaw loolu daal saytu nañ ko. Mhm. ni ministère. parce que loolu tam ci ci li ñuy waxati mooy suñu article un de la loi dañu tere euh, vraiment. industrie tabac dugal loxoom ci lépp lu jëm ci wàllu santé te wane nañ ni Covid bi cigarette bi daf koy yokk kon tey cigarette ak ku koy defar ñun soxlawuñ la ci xeex euh, maanaam Covid bi. Mhm. mbas mi soxlawuñ la ci. Mhm. parce que mbas mi booy gisee cas contact cas communautaire yi bari cas communautaire yi bari baal ma euh, c'est parce que ñu ngi xale yaa ngi tox di abalante mego xale yaa ngi tox euh, loxo bi setul. laal nga wala nit tis loo ni des sa kanam jàngoro baa ngi ci nga daal di jël cigarette bi tox fex nga ko ci sa gémmiñ donk loolu yëpp day lawal jàngoro ak yeneen recherche yoo xam ni ñu ngi ci actuellement di ko mëne mais am na recherche yoo xam ni tam Angleterre lañ ko defee ak France wone ni ñu feebar ñëpp boo jëlee ñett ñaar ñëpp ay tuxkatu cigarette surtout ñi nga xamante ni bi dañuy dem ba nekk réanimation ba maana ma ba maara deytaali sax ñàkk bakkan mañ ci dem. Hmm. Ah, parce que parce que tey par exemple euh, ba tey mun naa sax encore wax ni peut-être industrie du tabac seen loxo dafa xóot bu baax ci wàllu Covid bi parce que euh, euh, dès le début dañu doon wax que ni tabac dafa bokk ci maanaam ñiy tox dañu bokk ci personne à risque yi parce que évidemment lu jëm ci wàllu poumon ak yu demee noonu boo ci tux naree dooleeku moom gàllankoor yi day daal di yokku mais gis nañ par exemple tey ñu mel ni ay yenn professeur bu ci mel ni par exemple benn neurologue français publier wax ni que ni tey jii ñi nga xamante ne par exemple dañuy dañuy toog substance noire bi nga xam ne mu ngi jógee ci pon bi mun na am ay effets préventifs ak thérapeutique ci ci virus bi tey est-ce que loolu tamit du loxo peut-être euh, industrie du tabac ñoom ñooy euh, def genre mbir yooyu noonu. waaw parce que démb ñun def nañ benn télé benn webinaire boo xam ni c'était mondial. Mhm. askanu Afrique bokk ak Europe mais dañoo wone ni scientifique boobu. il a été financé par l'industrie du tabac maanaam. Mm-hmm. dañ ko neexal. pour mu def recherche mm-hmm. dañ ko neexal et du samay wax nag waxu euh, nit ku kawe la ci wàllu xeex cigarette ca France la. Mm-hmm. waaw. kon tey industrie du tabac ñoom mun nañu ni daal seen du ñu noppalu benn yoon daal ci li nga xam ne moom mooy wàllu pon bi. ñoom du ñu mus a noppalu parce que alal lañ ciy am waaye ñun tamit du ñu mus a tàyyi duñu mus a yi ci xeex. Mhm. cigarette parce que li ñu bëgg mooy xale yi dégluñu. Mhm. ñu ngi def ay campagne ci école yi ñu ngi def ay campagne tey comme nii nga ñu ko ma ko mayee ci rajo yi ak télévision yi di dem ci xale yi ak bërëbu jàngukaay ba ci université yi uniquement ngir rek xale yi xam ni cigarette amul benn njëriñ. Mhm. day yàq sa dund da lay indil jàngoro da lay indil lu baree bari tële ci góor ñàkk jur doom ci jigéen ak yu baree baree bari. Mm-hmm. amul benn njëriñ. Mm-hmm. Euh, tey pour dellu mën na la mm-hmm. lor. sa morom mi nga xam ne moo nekk sa nekk sa euh, tey lu mm, pour dellu si waat ci corona bi ak euh, taba bi tey ji est-ce que am na étude yu wone dëggantaan li nga xam ne moom mooy insidence bi. waa am na ay étude am na ay étude maa ngi la cité léegi une étude qui a été bi nga xam ne ñu ngi ko defee Angleterre. ak étude boo xam ne bii ñu ngi ko defee Chine. yooyu yëpp dañoo wone ni. cigarette amul benn njariñ ci mbas mi lu dul bu fekkee dala fekkoon ngay dox daf lay yokk parce que loolu ay étude la yu ñu réaliser yoo xamante ni bi tam OMS validé na ko OMS tamit jox ñu ay jumtuwaay pour ñu jóg wax di kat ah wax dëgg yàlla cigarette amul benn njariñ du la aar kenn ci mbas mi au contraire dafay yokk bu la fekkee ngay tux dafay yokku sa sa wokk ba nga xam ne da ngay dem réanimation mm. te su fekkee ni tam fekk na la ngay dox mu loolu mooy gën a waral sax ñuy am ay cas communautaire comme ni ma ko waxee sànq. Mhm. voilà tey jii nii ci euh, côté boobu wàllu sensibilisation bi yaa ngi koy wax yéen a ngi dem ci école yi ci université yi ak feneen ak feneen di di jéem a sensibiliser euh, tey ji est-ce que wër ngeen euh, Sénégal bi yëpp ci ci wàllu sensibilisation boobu. sensibilisation bi du ma wër nañ Sénégal ndaxte am na ay comités régionaux yoo xam ni mettre nañ maanaam région bu nekk am na gouverneur boo xam ne ak mbooloo mu ànd ak moom di xeex cigarette ci biir région bu nekk ci département bu nekk tamit am na wante des na campagne deux mille dix huit def nañ ko ga laal ak deux mille dix sept ci école yi Sénégal mais laalul woon l' ensemble du territoire national parce que tam il faut toutes les ressources mais nag comité régionaux yi ñi nekk ci région yi ku ci nekk ànd ak waa LISTAB ak yeneen partenaires yi nga xam ne dañuy xeex cigarette ngir laal école yi parce que ñun mënuñu touché ndoo école yi Sénégal parce que ëpp nañ presque ñetti junniy école mhm. lycée collège yi wala laalaguma sax élémentaire pour dire que il faut que ñu def ndànk-ndànk mais tamit bu ñu demee ci école yi tamit mën a laal tam rajo ak télé dellu day def rek yokk cible bi am nañ tamit benn plan stratégique boo xamante ne bi maanaam euh, benn téere bu ñu tënk bind ko pour saytu lépp lu ñu war a def ci at mi ba incha allah deux mille vingt trois fii euh, ñeenti at ci kanam ngir xeex lépp lu jëm ci poon ak cigarette. Mhm. dale ko ci former mhm. jàngalekat yi. Mhm. per le personnel de santé yi ñuy yëngu ci wàllu wérgu yaram yi. dale ko ci ñi nga xamante ni bii dañ leen di tudde les addictologues maanaam ki nga xam ne dafa dem a dem a dem ba tux ba chronique mënatul bàyyi su tuxul rek yaramam da koy laaj comme ni café di def ci yaram wala ataaya. Mhm. donc ñooñu dañuy forme ñi leen di jël en charge loolu yëpp téere bi tànk na ko ak nañu koy former. Mhm. li des nag ci téere bi mooy ñu am ay partenaires pour finan commencer activités yi de mën koo dérouler incha allah parce que dañu bëggaat bind ci biir beneen téere boo xamante ne bi jàngalekat yi lay jublu ak aussi école yi. Mhm. ak ñi nga xam ni personnel de santé lañ pour ñu jéem a xool nu ñuy defee déjà ci biir formation initiale bi maanaam bu ñuy former maanaam jàngalekat bi ak bu ñuy former fajkat bi ñu jël en charge ay modules yoo xam ni da leen di jàngal ci lépp lu jëm ci cigarette ak fóon ak li muy lore. Mhm. may fàttali rek mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 te ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne moom mooy Adama Mbaye nekk ca programme bi xeex wàllu PON fii ci ministère de la santé et de l'action sociale donc tey euh, madame Mbaye euh, ci lu mhm. jëm ci situation wàllu PON bi tey boo ñu ko doon décriral euh, tey lan mooy force yi ak faiblesse yi nga xam ne am ngeen ko ci bi ngeen tàmbalee lutte bi ba léegi. ah force yi ñu am moom mooy dañoo am benn euh, société civile engagée di ñu accompagner am nañ tam loi boo xamante ni bii ñun ci la ñuy saytu lépp lu jëm ci sanction ak lépp lu jëm ci mais euh, jëmale kanam ak comment dirais-je xeex bi ba nga xam ne xale yi dootuñu tox mag ñi duñu tox jigéenu wérul yi tam duñu tox wante tamit comme autre euh, force ñu ngi am derrière nous notre ministre de tutelle muy ministre de la santé et de l'action sociale ñu ngi am aussi toujours ay partenaires yoo xam ni ci wàllu école bi lañ nekk ak ci wàllu wërgu yaram gi ñu ngi am toujours toujours ci bénéfice yi ay partenaires au développement yoo xam ni dañ ñu accompagner deux mille seize ba ba deux mille dix huit comme ACBF am nañ tam OMS et j'en passe. Mm. faiblesse yi nag bari bëri na bëriwul. parce que defe naa ni buñ leen saytu nañ leen jéem a xool nan la ñuy def ba ba kii ko ba mu moytu ko et ci faiblesse yooyu dañuy dañ ci noté maanaam ressources yi ñu alloué à la lutte anti tabac dafa des buñ ko mënoon a yokk malgré le fait que am nañ benn chapitre budgétaire bu ñu ministère jox mais pour fonctionnement la mënuñu dérouler ay activité de projet donc loolu ñu ngi ciy ñaan suñu ministère de tutelle mu je profite de l'antenne pour mu accompagner ñu ci eh, yaakaar naa ni daal lool lañu mën a gis comme faiblesse ak aussi faiblesse au niveau de la verbalisation parce que bëggoon nañu wax dëgg yàlla buñ duggee ci lieu public rek ba restaurant fekk kuy tox rek aussitôt ñu teg ko ay daan mu fay junni industrie du tabac moom ñu ngi koy saytu bu baax ci force yi ñu ngi avec le conditionnement des nouveaux paquets maanaam paquet yu bees yi ñu teg ay avertissement sanitaire chaque année ñun euh, programme tabac da leen di topp ba jox leen image bu bees chaque vingt sept mars de chaque année ñu jox leen maanaam nataal bu bees yoo xamante ni bi mooy nekk ci ta ci ci paquetu pon bi am na tam beneen bu bees boo xam ni pon yi nga xam ne du dul cigarette sax am nañ emballage bu bees mhm. yoo xam ni day am ay ay nataal yoo xam ni ku ko xool xam ni ah yow kat li ngay jëfandikoo fa la jëmee du du du doon fu baax maanaam ci wéradi la lay jëmee ci feebar ak ci maaru day taali gàtt fan. Mm-hmm. ak feebar yoo xam ni kenn du ko mën a fay mm-hmm. beneen bi tamit mooy feebar yi nga xamante ni bii ah, noté nañ ko ci au niveau ci biir euh, askan wi ci biir hôpitaux yi maanaam li muy li muy li muy indi ci dépense dafa bari dafay lekk day lekk budget réew mi maanaam nguur gi ak askan wi li ñu ciy def presque toll na ci téeméeri milliards at hmm. mu nekk pour faj ñi feebar ak ñi feebar sam xaalis bi ñuy fajoo hmm. duñ ko saytoo programme taba ànd ko ak CRES consortium pour la recherche économique et sociale bu université de Dakar boobu wone nañ ci loolu donc pour dire que faiblesse am na force am na hmm. mais nag ñu ngi ñaan yàlla ñu dund ba force yi ëpp faiblesse yi am na solo euh, donc mu mel ni euh, yoon bi gudd na torop mais ndaw yi surtout parce que bokk na ci li nga xam ne moom mooy cible bi wax nga ko ci njalbeen ndaw yi dañuy li ñu gën a dem ñu gën a ñeme li nga xam ne moom mooy pon bi te loolu tamit mu nekk lu doy te yaa ngi koy wax yeneen ciy def sensibilisation ci école yeeg yeneen bërëb yi nga xam ne ndaw yi euh, dañu fay dañu fay dañu fay nekk mais ma bëggoon aussi ñu wax tey ci li nga xam ne moom mooy wàllu fumer cigarette bi. fumée bi ci boppam est-ce que fumée bi tey ay wan ay étude wane na ni fumée bi mun na mun na ko joxe pas euh, le fait que nit ki tox ko mu euh, organisme am faible mu mun a nekk personne à risque mais fumée bi est-ce que tey mun na transmettre euh, feebar bi. waaw fumée bi kay wane na ko. ci biir maanaam taxaar soosu. Mhm. ñeenti junniy musiba ngi ci toxique produit toxique yoo xamante ni bii bu duggee ci yaramu nit ki da koy jox sa jàngoroy cancer ak yeneen ak yeneen. Mhm. ak maanaam feebaru dënn day réveillé ñi asthme day indi infection respiratoire aiguë les maladies cardiovasculaires à long terme et surtout le cancer. Mhm. am nañ benn étude boo xam ne am na benn cas boo xam ni c'était un malade du docteur Kassé mu tudd Diallo. Mhm. jarbaatam nekk député à l'Assemblée nationale. di ko accompagner di ko faj. fekk mu dem ba cigarette si nee na bi muy tox amul fukki at. Mhm. chauffeur de taxi la woon donc mu dem ba cigarette si lekk gémmiñ gi yëpp. Mm. mu développé cancer. Mm-hmm. kooku ci kanam image yooyu incha dinañ ko def ci image yu Paketa Braye. Mm-hmm. wante moom dafa accepté ni moom day maye image am pour ñu. mu ci ñeneen ñi yee askan wi won leen ni cigarette dafa bon xeex bi nag dañ koy tàmbali parce loo xam ne ay ati at la ci gannaaw xamuñu woon danger yi léegi ñuy dem ba xam ko. étudiants ngi gën di dem di gën di wone musiba yi nga xam ni moom la cigarette di joxe ak fóon mhm. Mhm. voilà tey euh, aussi ñu gis ne journée mondiale bi ñu ngi ko war a amal ci dimanche bi euh, fanweeri fan ak benn ci weeru mai donc muy euh, journée mondiale sans tabac ren nag mu am euh, particularité mooy coronavirus bi donc euh, mhm. rassemblement yi du mën a am peut-être dajaloo yi doon sensibiliser ak yooyu du mën a am ci ban format ngeen ko nar a célébrer format bi ñu koy célébrer mooy comme nii rek émission yi ñu invité télé rajo am nañu tamit possibilité suñu ministre de tutelle wala keneen ku mu désigné génn ci télé bi wax ak askan wi ñun tamit tàyyiwuñu benn yoon dem nañ ci Twitter ak réseaux sociaux yi dinañ fa def concert ak biglaay pour yee xale yi ci cigarette bi parce que moom tamit ku ñuy accompagner la ci suñu campagne école yi. ak mhm. lycée donc am nañ ay page Facebook yu ñuy ubbi aussi. uniquement rek ngir yee xale yi ak askan wi parce que xale yi dañuy connecté wu bu dul rajo télé yooyu la ñu prévoir. voilà parce que tam gis nañ euh, ci euh, journée mondiale bi sax ñoom dañoo daal di méngoo ak li nga xam ne moom mooy euh, jamono ji parce que thème bi mu ngi jëm ci li nga xam ne kon moom mooy fu mu toll nii jëfandikoo tabac yi ci ci ndaw yi. aar leen itamit ci manipulation yi jóge ci industrie du tabac donc loolu moom mooy ren euh, li nga xam ne moom mooy thème bi nga xam ne tànn nañ ko ci journée mondiale bi te loolu mu ngi euh, mu ngi daal di euh, rejoindre li ñu doon wax sànq. dëgg la waa thème bi daf koy jagle vraiment xale yu ndaw yi parce que xale yi ñoom ñooy suñu ak suñu yaakaar ëllëg te nee nañ ku bëgg a tabax sa réew da ngay tabax saw ndaw donc boo defaree saw ndaw sa ndaw réew aar leen yée leen ci nga xamante ni bii lépp lu bon la loo xam ne mën na leen a yàqal. ah defe naa ni loolu day nekk wareef ci ñëpp koo xam ni yaay nga doom nga papa nga nekk tamit état loolu moo waral OMS jël thème bu rëy boobu jagleel ko ak ñu xale yi. Mm-hmm. te mm-hmm. dañu gis ni xale yi dañuy teel a tux. Mm-hmm. dañuy teel a tux étude étude prévalence sur le tabagisme en milieu scolaire depuis deux mille deux ñu ngi koy organisé bii def nañ ci quatrième en deux mille dix neuf résultat yi génnagul waaye xale yi wax dëgg yàlla dañoo jar mhm. surtout aussi féminisation bi am tamit ci ci wàllu tabaab bi xale yu jigéen yi itam di di di ko jëfandikoo. waaw féminisation bi moom depuis deux mille dix deux mille dix deux mille huit. Mhm. parce que en deuxième enquête gis deux mille huit diggante deux mille huit ak deux mille treize que ni xale yu jigéen yi dañoo doublé. bu amoon juróom ñuy tox diggante boobu fukk tox nañ donc en cinq ans bu dee cinq pour cent yokku na ci en dix ans deux mille treize ñu gis ni yokku bi dem na ba ñaar fukk kon bi ñuy waaj jot en deux mille dix neuf ñaata lay doon te xam nga ni jigéen mooy jur mhm. jigéen mooy yaay jigéen mooy éduqué su ko doomam di gisee muy tox day tox malgré que le fait que ñuy toxkat yu jigéen ñu ci bari dañuy nëbbatu te jigéen mooy jur doom tux bi day dem ba fatt seen butut njurukaay wala bu ñu ëmbee xale bi day juddu nekk xale bu ndaw ku tuuti foie bi du rëy xale bi mën na judduwaale feebaru dënd bu fekkee ni am na chance bu ëmb li may wax parce que tam cigarette day réduire chance de fertilité mu nekk kon day wàññi mhm. day day wàññi ni nga mën a amee yàlla may la man laa may njaboot ci góor comme ci jigéen mhm. Mhm. ba tey yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 ñu waxtaanee tey wàllu tabac tey euh, euh, madame mbay ku bëgg a bàyyi tey tux euh, yan tettal ngeen ko mën a jox parce que ñu bëri dañuy bëgg mais dañuy dem ba ci biir ñu daal di replonger waat mu nekk loo xam ne quand même sevrage bi day day metti da ngay flancher très très rapidement tey lan mooy voie bi nga xam ne daal yéen professionnels yi di ngeen ko digal ñi nga xam ne bëgg nañu bàyyi. waaw ku bëgg a bàyyi tox moom la ñuy ñaan muy gën di yokku parce que chaque jour nag muy service de l' et de l' information pour la santé bu ministère li muy jot ci appel bu dee téeméer mën nañu juróom-ñaar fukki yëpp waxu cigarette la ñuy wax mhm. donc bu ñu wootee ci numéro vert ministère daf ko mettre à la disposition huit cent double zéro cinquante cinquante dinañ jot ay ndaw yoo xam ni dinañ leen yee orienté leen bu dee dañoo bëgg bàyyi gis spécialiste am nañ ay spécialiste ay docteur yoo xamante ni bii sevrage tabagique la ñuy def maanaam saral nit ki ci cigarette ba dootu ci dellu. Mhm. te boo yooyu ñu ngi ci structure de santé yi comme hôpital général de Grand Yoff wala suñu patron nekk docteur Omar Ba. Mhm. am na ko aussi centre de Fann hôpital centre national de Fann am nañ ko aussi. à Mbour avec docteur Adja Adja Diop et cetera. Mm-hmm. te ñu ngi wut ay pexe tabax. Mm-hmm. ay centre de sevrage. Mm-hmm. surtout loolu pour que ñu mën a tey euh, def li nga xam ne moom mooy désintoxication bi mën a daal bañ cee delluwaat même bu nu ko bàyyee. am na aussi ñoo xam ne dañuy utiliser ay alternatives yu ci mel ni ay pastèque ay yeneen ak yeneen yoo xam ne. Euh, buñ ko defee jàpp nañu ni dina leen jàppale mais yooyu daal euh, dafa mel ni efficacité day des parce que ñu ci bëri dañuy replongé waat. waa parce que pastille yooyu ak gom yi. Mm. da nga koo war a jëfandikoo ak accompagnement docteur. Mm. maanaam ndaw santé. koo xam ne ci wérgu yaram lay yëngu ci xeex cigarette parce que mënoo tëb tëb rek yow defal sa bopp mu réussir kooku moo lay jox ay conseil xam nga ku nekk dégg na accompagnement psychosocial. Mm-hmm. parce que cigarette moom day yàq bopp. Mm-hmm. da ngay dem ba mu nekk ci sa dund loo xamante ni bii yow xëy na xalaatoo woon ni sax dina fa egg. Mhm. loolu moo waral mënoo tëb rek dem ci pharmacie jënd pàcc yi di ko jëfandikoo. Mhm. il faut nga dem ci centre yi ba pare ñu bind la ordonnance accompagner la defal la test xool fu sa yaram toll. Mhm. ndax cigarette bàyyi na la fa jàngoro ak lu fu mu la jëmee. Mhm. ñu gis ne aussi lu mel ni cigarette électronique ay jamono xaw ma nag ba léegi xale yi jëloon nañu ko bu baax di ko di ko jëfandikoo boobu est-ce que am na ay études yoo xam ne ñëw na pour wax euh, seen euh, seen dangerosité parce que peut-être ñi ko doon jël dañuy yaakaar ne peut-être alternative la boo xam ne c'est moins dangereux que euh, cigarette bi. waaw bu njëkk dañ ko doon wax ah, ay études wane na woon na ko mais ñun Sénégal. cigarette électronique ak cigarette pudul électronique lépp lañ boole boole lépp benn baaxu ci. benn baaxu ci kon euh, li nga xam ne moom mooy. bàyyi kon cigarette bi euh, dégg ngeen ko sànq madame Mbaye nee na am na ay numéro yoo xam ne teg nañ ko en place numéro vert ak tamit ay structure parce que tamit ñenn ñi parfois ñu dem ci maama ni ñu leen di bindal ay téereeg yu demee noonu pour ñu mën a bàyyi mais faju daal ba addiction bi mën a mën a deñ peut-être euh, yaakaar naa ne moom moom mooy yaakaar naa ne moom mooy ëpp solo euh, ci euh, ci mbir mi. aussi euh, euh, madame euh, madame Mbaye ma bëggoon la poser une question par rapport ak euh, tey li nga xam ne mooy moo am ci wàllu xeex bi avant euh, ba léegi sax mun naa ne ñu ngi ci couvre-feu beeg état d'urgence bi tey baar yi ak restaurant yenn yi nga xam ne ci guddi gi lañ doon fonctionner nit ñi di fa bëri di tox bu baax a baax est-ce que loolu yaakaaru leen peut-être que ne am na lu mu wàññi peut-être ci consommation cigarette bi. ah oui wàññi na lu bëree bëri parce que tamit. Euh, njëriñu couvre-feu bi moo waral ñu maintenir ko parce que baar yi dañuy tëj <laughs> hôtel yi tëj vingt ku ne dem tëddi vingt la woon sax il a fallu que koor gi ñëw pour ñu dem ba vingt et une loolu yëpp sant la te yaakaar naa ni impact am dinañ ko gis incha allah mhm. dinañ ànd ak yi nga xam ni ñoo ciy xeex jéem a xool à partir des malades de cas nan la ñuy saytoo ba nga xam ne dinañ ci am résultat boo xam ne dinañ ko mën a partager incha allah. Mhm. incha allah dina am solo parce que loolu moom euh, dina baax askan wi xam parce que comme ni ma ko waxee ak couvre-feu beeg yooyu ñu bëri tëj nañu. donc euh, c'est normal que euh, lieu yooyu nga xam ne da daan accueillir jet set beeg yenn nit yi nga xam ne ñoom foofu la ñuy dem te endroit yooyu ci bëri tux bi dafay bëri lool donc dina nekk lu lu am solo Euh, li nga xam ne moom mooy wàllub euh, sensibilisation bi ci lay ci laay ñëwaat tey ji ñi nga xam ne ñoom dañu bëgga a peut-être euh, yéen ñi di sensibiliser ñi ñi nga xam ne dañuy tuux te yan matuwaay peut-être ngeen teg à leur disposition pour ñu mën a protéger seen bopp ci jamono yi ñu toll ak coronavirus beeg yooyu. tey bu ñu a jox mooy ñu bàyyi ñu bàyyi loolu a wax parce xale yi nga xam ne amuñu moyen. lépp dañ koy partagé ni ñuy weccee ko toogee di partagé ataaya noonu la ñuy partagé benn cigarette te loolu waxoon naa ko ci njalbeen li dafay joxe des cas communautaires de la Covid 19. Hmm. kon tey mën nañu euh, communautaire boobu ngay wax c'est important ñu ñu taxaw si parce que kon ça veut dire que tey parce que ka communautaire dañu naan kenn xamul fan la jógee kenn du xam ku la ko wàll yooyu donc tey yooyu ay vecteur la pour nit ñi gën a mën a xam daal ñu gën a mën a moytu. waaw loolu tam dañ ko ciy dugal parce que tamit day tax ñu xam ni cigarette bi tamit daf ciy am wàll bu muy def xam nga Sénégal lépp la ñuy partagé réew mi moo demee noonu xëy na jikko yi bëgg nañu di partagé mais tamit askan wi foo ak ñaq gi mooy waral loolu da ngay gis xale bu nekk ci classe daw jënd bokk ak ñetti xaritam benn cigarette. Mm. te j'en passe benn exemple la bu ma joxe. Mm. bu dee dafa jënd paquet xëy na mën naa partagé tamit nga ji am for juróom jëndul benn wala fukki dërëm. loolu tam lu ñu war a xeex la. Mm. parce que tamit euh, dina bokk bokk na ci li nga xam ni dafay yokk ñuy tox ak aussi kaawu coronavirus. je pense que tey moo tax peut-être euh, bokkoon na ci loi bi sax euh, prix yi gën a mën a yokku daal aussi. waa yi nag moom bëgg nañ mu yokk parce que ñun taxe bi dañoo yokk taxe. taxe bi. Mhm. taxe bi de quarante cinq pour cent ba soixante cinq pour cent mais industrie ci boppam ñoom ñoo teg seen i matuwaay ba prix bi du yokk mais fi mu ne ñu ngi ci taxe ak valero loolu lañu bëgg état accompagner ñu ci ñu yokk taxe yi ba nga xamante ni bi xaalis bi nga xam ni mooy jóge ci taxe yi dinañu mën a accompagner ñu xeex cigarette ba pare xeex yeneen jàngoro ci biir askan wi. parce que ñoom dañoo dañoo takku ko loolu mooy wane rek encore une fois takku gi nga xam ne ñoom takk na takku nañu ko ci euh, seen seen pône bi daal dara du leen ko yàqal parce que euh, yaa ngi wax yokk ngeen taxi yi mais ñoom terewul. ñu teg seen tànk ci prix yeeg yooyu fa lañ ko teg pour que mën accessible parce que euh, ñoom dañuy jàng askan xam nañ ni askanu sunu askan yi ñun fii en Afrique ak yooyu moyens yi bariwul donc boo yokkee mën na tax nit yi mën a mais boo bàyyee prix bi tel nit ñi dañ ci gën a mën a jot. voilà ñoom seen stratégie loolu la hmm. malgré le fait que man bëgguma <laughs> faruma leen benn yoon mais nag yàlla moo am doole yal na leen na saxal hmm. te askan wi walbatiku seen xel jublu ci ñun waa santé ba nga xam ne dinañ xeex lépp luy cigarette ak fóon ci askan wi li des ci émission bi euh, bariwul euh, madame madame mbay euh, peut-être tey jii nga ngeen wax ñu ci alternative ci maanaam perspective yi nga xam ne am ngeen ko même au-delà de corona bi peut-être pour ci wàllub loi bi ñu gën ko ñoŋal gën ci baywaat xel mais aussi askan wi parce que j'ai l'impression que askan wi ba tey sensibilisation bi des na daal ci côté euh, pon bi jëfandikoo pon bi surtout ci ñi nga xam ne dañuy nekk ci lieu public yi di fa tox di sonal di lox seeni morom tey jii c'est rare nga gis benn sénégalais bu jël woote euh, police ou keneen ak keneen ne ah kii de mu ngi tox sama wet ak yooyu yu demee noonu daal. waaw loolu dina bëgg nañu askan yeewu ci ba nga xam ne ñoom tamit dañoo war a dañ ci am wàll ci biir xeex bi. sooy ñëw nga nekk nit ci benn. li nga muy tox di la xët dafa war a dañ te si suñu perspective suñu perspective actuellement mooy euh, lépp loo xamante ni bii fépp foo xam ne ñu ngi fay liggéey askan wi di fa dago di fa dajaloo fu ñuy liggéeyee bureau public yi hôpitaux yi écoles yi kenn du fa tux fépp fu ñuy dajaloo ba ci bar hôtel restaurant mais ci biti nag léeg-léeg comme ni nga ko cité sànq ci arrêt car yi normalement bu fa boo taxawee di toog keneen ñëw rek yow war a ngaa fay sa cigarette parce que tamit c'est en plein air wante nag yar boobu moo def ak sensibilisation bi mais incha allah dinañ jéem a ànd ak suñuy ministères yi ñu lëkkaloo parce que xeex bi kese du ministère de la santé wax naa ko tànn. Mhm. y a le ministère de l'intérieur mi ngi ñuy accompagner avec les forces de défense et de sécurité. ba nga xamante bi dinañ jéem a appliquer la loi. Mhm. ci perspective yi tamit am nañ benn projet projet boo xam ni de décret mi ngi au niveau du secrétariat général du gouvernement bu ñu rédigé avec la société civile euh, boo xamante ni bii euh, dafay jéem a euh, saytu ñu ñuy fu ñuy jaayee lépp luy poon ak cigarette muy décret sur les débits de tabac dañu bëgg débit de tabac yeeg boutique yi ñu génne fa cigarette fi parce que ñoom dañoo muus ba xam ni. cigarette ci wetu bonbon lañ koy teg wala ci wetu tàngal xale bu ñëwee di jënd bonbon aussitôt bëtam day dem xalam da si dem hmm, loolu yëpp dindi nañ ko loolu yëpp dañ koy dindi donc pour dire que actuellement ci perspective yi boobu moom ci bi ñu gën a ñor la à part les activités de sensibilisation muy ñu dimbali ñu signer projet de décret boobu ba nga xam ne ay débit ay boutique la ñuy teg di fa jaay uniquement tabac te gouverneur de région moo koy signer bu boobaa incha allah hmm. Euh, fan ngeen toll itam euh, fan ngeen toll itam ci trafic illicite bi. trafic illicite euh, actuellement xam nga dafa am moom téere boppam ñu tudde ko protocole sur le commerce illicite. Mhm. protocole boobu convention cadre moo ko bind. wante Sénégal def na ay jéego ñu ngi jéem a xool nan la ñuy def ba téere boobu ñun ñu tënk ko ci suñuy réalité sénégalaise ba man ko bañ koo xeex ci biir réew mi mais bàyyiwuñu parce que suñu force de défense et de sécurité yi gis nañ suñuy paquet cigarette te paquetu cigarette bi dañuy def Sénégal rek lañ koy jaayee. kon mm-hmm. beneen paquet bu jógee mbitim réew ñëw fi dem dañ koy nangu. te bu boobaa dañ koy dajale ba mu bari ñu dem taal ko lakk ko comme ni ñuy defee ci ci ci drogue. ci yooyu. Mm-hmm. Mm. yegg si nañ si njeexitalu émission bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi ak conseils yi nga xam ne da nga koy prodiguer ñiy toox voilà ak ñi nga xam ne sa toxaguñu. Mm. Euh, donc maa ngi émission SOS santé. Mhm. di la sant di gërëm. di gërëm aussi waa LISTAB ñi ma ñi ñu permettre ñun waa programme national de lutte anti-tabac ñu ñëw ci émission bi. di gërëm aussi suñuy autorité supérieure et hiérarchique de de de du programme dale ko ci docteur Oumar Ba ma Mbayam Dione ak Jean Pass dale ko aussi ci directeur de la prévention mi nga xam ni moo ñu ba moo ñu boot docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di gërëm aussi di sant askan wi yëpp ñu déglu. parce que tamit wax neex na mais kuy wax tamit euh, ñu déglu la am na ci solo di tamit balu àq parce que wax ko si toujours man nga ci wax loo xam ne day toucher sensibilité nit ñi bu fekkee loolu am na ci maa ngi ciy balu àq. Mhm. wante sama dernière recommandation mooy jëm ci askan wi jëm ci xale yu ndaw yi yéen xale yi yéenay suñu ak suñuy yaakaar ëllëg ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyil ñu fi cigarette ak lépp lu bon. yal na leen yàlla xiir ci ngeen bàyyi cigarette ngeen bàyyi ci lépp loo xamante ni bii dina leen lor. Mm-hmm. lor askan wi. Mm-hmm. parce que ëllëg yéen la yaakaar yéen a war a tabax réew mi. Mm-hmm. yéenay suñuy imam ëllëg yéenay suñuy docteur yéenay suñuy sage-femme d'État yéenay suñuy enseignant donc xale yu ndaw yi maa ngi leen di tàllal loxo. di tàllal loxo askan wi yëpp ñi boot xale yu ndaw yi tam ba ñu jàppale ñu ci muy waajur yi di jàngalekat yi. di personnel de santé bi di yéen journalistes yi. Mhm. yore rajo ak télévision parce que tamit bu ñu leen amul woon dina metti dina ñaaw. Mhm. surtout ak Covid bi mënuñoo wàcc askan wi yéen a ngi ci remplacer ñu ñu ngi leen di gërëm di sant média yëpp j'en profite rawatina. seen seen seen média mhm, di la jaajëfal bu baax itamit madame mbay Adama Mbaye yor euh, suivi ak évaluation ca euh, programme bi xeex wàllu poone fii ci Sénégal ñu fàttali nag journée mondiale sans taba euh, ci dimanche bii ni lañu koy amal ci àdduna wërngal këpp di kon fanweeri fan ak benn donc journée mondiale sans taba képp koo xamante ne da ngay tux nga jéem a daal profito ci bés boobu jël décision surtout que bàyyi tux moom volonté la nga jël décision que ne di nga bàyyi mm. tox te je pense que loolu moom ku ci doggu rek euh, su boobaa yàlla dina la si jàppale ñuy jaajëfal ñëpp euh, ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu ci la 97.5 Rewmi FM di jaajëfal sunu invité di leen dig daje di prochain incha allah beneen thème ak beneen invité ci Rewmi FM 97.5.